du bureau. yéen a kaay yeeg Mamadou Mouhamed Abdoulaye Wade ak i ministre am ndekke dañoo seeñu Sénégal soog a dem ubbil observateur ñeenti téeméeri milliards jëlee nañu ko ci réew mi rawale ji ko làq ko ci réewi naar ya waa forum civil ñoo feeñal dil bi maître Moussa Félix Sow ancien bâtonnier doon it national adjoint bu forum civil ne koppar yooyee toll ci ñeenti téeméeri milliards di tëdd di nelaw ca banque ya nekk ca réewi golf ya ca banque ya nekk ca Paris la njëkk fa la jaar soog a lépp nag maître ne lu ci ëpp ci jamonoy annoncé gi ko fa te nag Macky Sall bu dee bëgg naa wàññi coonab askan wi bi du wàññi ak dundam rek jox nit ñi ñu dunde moo koy saafara waaye faaw mu dem jëli xaalis bi nga xamante ne ji Abdoulaye Wade ak ñoñom yóbbu nañu ko ci bitim réew bu ca jógee nag annonce gi nga xam ne moom la ñu dénkoon OCI gi Félix ne faaw ñu lijjanti ay mbiram lëj mbët ko ndax annonce la fa am ci njuñ jaaj i tappale kenn xamul nu mu toll tontul kenn ci ñu ne woon ca yëf ya di Abdoulaye Baldé waa ji wax na observateur nañu démb ci RFM ba ko Daouda Diouf dalalee ci émission bii di yoon wi doon ko laaj xalaatam ci ñeenti téeméeri milliards yi ñu ne Abdoulaye Wade ak i ministre am dañoo dem làq ko ca banque ya nekk ca réewi golf ya ca loolee lu ci ëpp ca jamonoy annoncé gi la te moom Abdoulaye Baldé bokkoon na ci annoncé gi ana lan la ca xalaat yi ne kayib nañu la mu tontu ñu def ci enquête ngir ñi ñu ciy tudd ñu mën leen a ku ko audité Abdoulaye Wade ak li mu def ci réew mi lu ca bari jalub muus la boo koy suli di gis lu la ca neexul le quotidien a yi nañu jox jege ñaale Abdoulaye Wade yi waxuma la ñoom ñu ko jox waaye seeni sët mën nañu fa dëkk libération nañu njuuj njaaj gi des na ndax wote présidentiel yi ñu doon amal ci réew mi matériel ba ñu ko def njëndin wi ak njuñ jaaj am na ca lu toll ci ñaari téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-benn moom la waa sentif ak waa parc Québec gendarmerie sol seenu dàll di ko wër te fa ñu koy wëree mooy ca direction générale des sélections te it yamu ca ndax am na ñaari l'homme d'affaires yoo xamante ne ji ñoo ngi ci biir tapale yi yoon dana wax ci ñoom wax waxeet bu dee am na ñu ko Abdoulaye Wade jàngal ba ñu mokkal ko Macky Sall ca la bokk defee sax dafa garaaw na mu def Walf Fadjri xëy ñu ko xamal parti réew fàttewul li fi amoon diggante Idrissa Seck ak Macky ndax ba parti Rewmi di soog a juddu boromam di Idrissa Seck demoon ca ministre intérieur bëggoon récépissé ba dem fekk fa Macky ma ne woon ministre intérieur ca yooyu jamono la ko Macky xamaloon moo di parti bu tudd Rewmi mënuñu ko jox récépissé yéeni kaay bi nañu Macky ma waxoon loolee tey jii dellu na ca gannaaw ndax parti Rewmi njiit Rewmi jox na borom Rewmi ay kayitam léegi parti delluwaat ci gannaaw El Hadj Mbodj nañu ci journal bi loolee Macky du ca woon dara dañu ko def la woon rek mu def lépp Abdoulaye Wade la ndax ca yooyu la jamono Idrissa Seck mu fipp woon wan ko ginnaaw la Abdoulaye Wade mënutoon a muñ tax mu bëggoon koo indil saytaane bëggoon koo xañ ab parti fa kenn bëggul fitna am ca mooy ci lamb ji ci lamb jooje laa jëm ak yéen ubbil sunu lamb combat triple S Balla Gaye doomi Double Less ak Eumeu kii di Eumeu moom fukki million Balla Gaye 2 bu oyofalul loxoom Gaston Mbengue du tëgg kombaam la tax Gaston Mbengue xam ne ci sunu làmb ne ak combat bu mu mënti doon munta weesu ci mbër téeméeri million ci observateur Gaston Mbengue di fa ne mbër mu yaakaar mu fay la lu ëpp téeméeri million booy boo nga dem seeti feneen ci Walf Fadjri Sport Gaston dikk tëj wax ja xam fa ne coow lee bari rek ci Balla Gaye waaye Eumeu Sène moo ëpp ak njëkk Balla Gaye